asalaamaaleykum euh, mbokki téléspectateur yu euh, Guédiawaye info point com tey Guédiawaye info mi ngi ñëw ci biir Guédiawaye euh, marché bu bees secteur boobu yëpp ah ñu day fekk suñu mbokku mbër dama ma koy wax trop lu bëgg moom waxal ko boppam direct rek mën naa ko wax réparé ah nekk écrit Papa Kane réparé ñu ngi lay nuyu ci Guédiawaye info ba nga nuyu pare ñu dugg ci waxtaan. waaw ginnaaw baatu on se dit daal merci daal rek bisimilah rahmaani rahim. ginnaaw bañ sant yàlla di sant bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu entraîneur di sant suñu mbokku mbër yëpp waaw man la Répar 2 école de Papa Kan di doomu Guédiawaye di xale bu ndaw waaw. Euh, euh, Répar nga ne école de lutte euh, Papa hmm. am na ay programme yu bëri yoo am ci kanam lan ngay wax ci làmb ji en tant que jeune lan nga bëgg ci làmb ji. waaw làmb ji comme ñëpp luñ ci bëgg rek. teral day teral bàyyi teral mag ak képp ku ci yàlla boole. Hmm. te laam ñu dugg ci fulaak fayda nag. Mhm. fulaak fayda moo si tax a jóg. Mhm. foo tax ñu say jóg. Mhm. comme ni suñu morom am am si. te gëm nañ ko dinañ si am. mais lan moo la poussé xalaat ne tey man gëm naa ne lii sama morom am war naa ko ci am di ñëfe dugg ci. waaw ndax su doon foo moom si te gëm naa ni li ñëpp am dama koy am ba dinaa leen romb. xam nga sànq dama avant ñuy commencé dama wax ak maire mu wax ma ne ma da nga def eh, xam nga bu ñu eh, ñuy wax làmb entraînement noo mel ak entraînement yi ñu pare. waaw entraînement yi ni ni ma mel lu may lekk yi rek. Mhm. waaw noonu laa mel entraînement. Mhm. maam xam nga euh, su ma xëyee. Mhm. damay ndékki. damay añ damay reer. comme comme si kon noonu laa def entraînement yi. journée bi naan entraîné trois fois. matin. dama dem géej. dama dem salle dama dem école. waaw dama entraîné bu baax. ndax li ma bëgg entraînement moom ko mën a may. Euh, waaw d'après ci lamb ji ba nga commencé léegi ñaata nga am ak ñaata victoire. waaw ah, amagum naa trois combats. Mhm. trois victoires. Mhm. trois euh, euh, fan dem bu jóg wala. sama premier combat moo ngi nekk Ibamar. Mhm. jour combat Alioune Seye Boy Baol. waaw. tay yow lan moy seen projectif projection yo xam tay eh, yeen bëgg nga bëgg na yow bëgg dégg jamono ji ñu toll. yan bëri instant nii nii nii nii nii sama morom rek laa soxla. Mhm. sama morom bari na ci. Mhm. waaw comme instant yii li may rêvé li ma seen yor loolu bëgg indi indi ko pour quoi ko pour ci Balla quoi. ko pour mhm. mais dina fi ñëw mhm. allah ñun tey ni ngeen mën a ak yow noo mel ak mbiru géejawaay comme ñu wax comme mbiru pikin ñu jàppalante seen biir ndax yéen loolu yéen ko dund aussi au niveau géejawaay waaw loolu moom maa ngi sant yàlla bu baax baax baax mhm. ndax mbër gi du ma gis kenn mhm. doon bu muy mag di ñëpp ba dem romb ma xam ñëpp ñëpp ka vrai sama mag rek fi ne mënu ma leen jaay loo xamante ñoom kay li ñuy def damay seen tànk laay wéy waaw seen tànk laay wéy comme Pambaay comme ñeneen ak ñeneen ñëpp seen tànk laay wéy daal waaw léegi euh, ci ginnaaw loolu ma gis aussi tamit euh, euh, mbëru géejawaay yi tey ban lancé ngay gën a mën a fédéré waat gën a jàppandiwaat li may lancé moom lenn la rek lu ñuy def nii ñu ñu bañ see tirise dara ñu bañ see tirise dara ñu def fulla def fayda def jom xam nga comme mbooloo bi nii nii. ñun ñoo fi njëkk a def. waaye Pikine daf ñoo ëpp ful sa instant yii lu xew dañ naan Pikine moo loolu ñun ñoo ko fi def Pikine daf ñoo ëpp kon lu ñuy def lépp lañ ci boole fula ak fayda ak jom ñu continué ko. ñun ñu mbër. catégorie boo booy si am na géejawaay. muy mag ñi di xale ñi catégorie booy si am na ko te mbër yi fi nekk mbër mën a bëri kon nañ def suñu fula def suñu fayda suñu jom laa ko. mais nag am na loo xam ne il faut que ma laaj la ko luy ay di njàmbat mooy jamono jii ñëpp dégg ngeen ko ci presse bi. ñu koy wax mooy Kaaw Sakho Dior lan nga ci wax. Kaaw Sakho Dior moom mu mu mu jeex mu jooma kaa kon ma ko yoroon tey tey tey tey ma su ma ko yoroon tey tey tey kon mbëri Géejawaay donte ñëpp mënuñoo génn lépp kenn ku nekk su defee cent mille cent mille dina dem ba desal ba faju kon kon ku nekk daal na xool ne sunu sarax la wala sunu sa mag di ko fekk waaw ñëpp mu du du gii joxe kese mbër yëpp surtout CNG surtout CNG daal ndax ndax mbër yi dañuy bëri di fay assurance ñëpp dañuy fay assurance kon moom moom mbër la CNG na si jàpp ak yeneen am na yeneen mbër yu fay la pour sa abal parce que kon tey ban lancé ngay appel pour nga xam ne ci cas yi mel noonu ñu feebar mm. tey yéen en tant que mbër géej lan ngeen ci mën a gën a mën a def lu ngeen xalaat loo xam ne ko def ëllëg tey comme dal mm. balaa ñu wax sax keneen di ko yëg ngeen wër géejawaay mm. ngeen ci yéen kilifa yi nekk géejawaay yaa ngi dem fekk fekk leen ñoom mm. xam dañ dem ci wax ci loolu waaw instant nii am na pour l'instant nii jàpp naa ne su la yëpp nañ ko kon pour man lenn la ñu war a gën a mën defar autorité géejawaay yi muy Ahmed Aïdara xam nga ñu Malick Gakou di ñeneen ak ñeneen doon suñ jëlu suñu benn oto sax ñu def si musique. xam nga ñu wër si géewaay yëpp di ko yëgle. pour jàppale ko pour kettal pour jàppale ko échange bi jot na. jot na ndax ku ko seetaan ñu wax gisatul xarit gisatul kenn. yaa am la gis papaam ak jabar ak doom te tellement que li mu wax moo nekk ci moom xam kon nañ ko jàppale échange yi jot na ko ñu jàppale ko. Euh, kàddu gu mujj looy wax ci Guédiawaye ko en tant que mbër ak sa avenir tamit aussi. Ah. waa maa ngi sant waa Guédiawaye yëpp. Mhm. di sant waa Guédiawaye yëpp. Mhm. di sant suñu waa kër. Mhm. suñu suñu waa kër ñëpp. waaw kii moom sama mag la. kii sama mag la sama yaay la. comme si que maa ngi nekk sama koy sant bu baax a baax di ko gërëm. di ko bàyyi yàlla di ko bàyyi yàlla li mu séntu si ñun. suñu borom moo tali xam nga ak ñoom ami ko kooku moom dama ko ayat. dam naa ko sama sama rakk la. ba pare mom sax séeru wooy la ma am ak sama ak sama màgget tamit sama jigen wa ak ñom nday ak ñom ak sama jabar ji nek ci kër gi sama jabaru mag la wa neena jabaru suñu melal ni mom xam nga kon kedd ta ñaareel la ma koy bëgg bu baax baax ak ñepp wa kër gi sama yaay sama yaay ma ko sen bu baax baax yu gën man considéré nekku nekkaguma mbeur bala ma nekku mbeur jëndal ko kër yóbbu ko Màkka su boobaa laa jàpp ni mbër la yu tànk deful ma ko lool de du ma mbër waaw sant waa Guédiawaye yëpp yëpp bàyyi ma kenn ku ci mel ni Jaxu Jaxu Sow maa koy sant bu baax baax di ko gërëm ndax ndax Mbaye maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ak jëkkëram maa ngi leen sant ñoom ñëpp daal di sant waa Guédiawaye yëpp di sant suñu waa écrit suñu entraîneur ku ci mel ne Iba Cheikh Thiam Boy Thiam Xaya xam nga ñëpp daal maa ngi sant bu baax baax baax ndax nit woo nit rek dama ñëw mu ne waaw doy na sant yàlla waaw kii li ma gis nag mooy dëkk bii ma dëkk ñépp ñu mag góor jigéen ñoom laay njëkk gërëm ndax ñëpp ma bëgg saa yu sama njaboot gi amee combat ñoom dootuñu nekk ci jàmm ñama xam ak ñama xam xale yi nag. damay santaat yàlla bu baax a baax di julli seenante bi ndax dañoo nekk xale yoo xam ne man rek sax su ma nee sama doom ci mbedd mi dañ koy dañ leen di xëccoo man ndax xale bu fekkee dangaa nekk ak moom mu lay déggal toll na ni mu toll war a toll mënuma leen su ma su leen neexoon su ma leen nee aw leen nii ñu bañ maa ngi leen di woo di leen ñaax te lu ma leen wax moom lañuy def ñu seen entraînement ñu dem di ñëw du tux dina naan dina gens sàccuñu alalu jàmbur bés bu yàlla sàkk dañuy dem di liggéey dem ñëwaat kii ministre la atelier bi ngeen romb ci lay liggéey moo liggéey matériel bi ci néeg bi naa leen ko kon kooku làmb ji topp ci tànk magam nag maar la kii mën a réparé réparé bii nga xam ne moom la tudde boppam moom mooy seen mag foofu dafa tukki mu ne nekkoon na ci làmb ji yàlla may ko mu dem tukki bàyyi fi Marley bàyyi ko fi moom nii ah ñu ngi jaar nag si tànk kooku kooku da daan la su amee avance day leb sax paas ñëw na ma yaay ñu nii mu xale yi ñu daal mu bari ba ni mu bu yàlla mayee ko avance day na ma yaay mi ngi nii ak nu mu mënti toll moo magam ji ñun ñëpp ñu toogandoo daal di waxtaan seet ni ñuy def. mom mi su amé avance du ko laal day ñëwaat ba ci kër gi mbeur yëpp loolu laa leen di diggal comme ni nga waxee ne yaay dafa sonn yaay ku sonn la ku jara a bàyyi xel la li nga wax dama la cee sant bu baax a baax ndax yow yaa ngi ñaax ñëpp ñaax na ñëpp te yow xale bu la déggal dina avancé maa ngi leen di ñaanal nag fi ñu jëm yal na sa borom bu yàlla leeral yoon bi na leen yàlla lafal cat ak làmmiñ ak ndox yal nañu li ñuy séntu yal nañ ko jot yàlla buñ jokkandiku sant naa yàlla bu baax bi di seen dëgg sant leen déggal nañ ma wax dëgg yàlla bëgguñ ma mer bëgguñ ma xiif bëgguñ ma mar te fu neex laay tëdd lu neex laay lekk loolu lépp nag sant ko yàlla la comme li nga wax léegi rek mënoon nañ koo ko yóbbu di ko fowee ka def lu ne waaye déedéet yéen ñi ñëw tam yal ngeen yokk ba yëg ko yal na ngeen yokk ba yëg ko ci barke maam borom Tuubaa barke Sëñ Fall jërëjëf